asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar baax di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yëkkati ay kàddu yu ak yooyu njaal ak yooyu jéggulu kilifa gu mag bu fi bàyyi ko di Ahmadou Makhtar Mbow kàddu yi ma di ko yëkkati muy kàddu yu témoin ci turu njabootu soxna Maymuna mu sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul te sëriñ Mouhamadul Mahfous ne ca bopp ba ànd ak soxna Aysatu Mbàkke ak sëriñ Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma kàddu seere yi mooy jëf ju rafet ju rëy yoo xam ne histoire du ko fàtte te ba mu koy jëf bisub tey taxoon mu di ko jëf muy kere ba soxna Maymunatu Mbàkke bintu Cheikhul Xadim toggee boo boobee nga xam ne moo sos laylatul xadar doon ko andil Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke te booba waruwaay jafe woon ci réew mi mu nekkoon daaru moo ki di fa jàngale yëkkati woon ab waruwaay jox ko soxna May Muna ba jëfam joojee mënoon a sotti keroog. soxna May ñëw ni ma maxtaar man kat dama bëgg dem Touba tey ci guddi laylatul bésu guddi xadar la dama bëgg bëgg dem yóbbu Touba dama bëgg yóbbul sama mag sëñ Touba sëñ Fallu dama ko bëgg yóbbul ndogu ndogu bi ñett wala ñeenti ganaar la woon mu def ko ci benn paan et benn bool plutôt benn boli ñu jóge e Touba ci ci jógee Daaru Musti gi yóbbu ko tuuba ci laa jëkk jëre gise sëriñ Fallou booba yoon amu fa booba ay piste la ñu amee booba xàll ay xàll la ñu amee xam ne dafa bari suuf ak yooyu oto benn oto ban sama oto 4 x la woon booba booba oto 4x4 bariwul ci réew mi et moo tax mu mën ko jël dugal ci oto bi yóbbu ko ndax bu dul loon 4x4 du mën jàll loolu njabootu soxna Maymuna duñ ko fàtte mukk waxtu wu nañu di ko nettali waaye xam nañ ne bisub taya taxoon mu di ko def kon nag ñoo ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba di ñaan ci daraje yi soxna Maymuna mi nga xam ne moo taxoon mu def ko ak barkeb Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne moom lañu yëtoon reer ba daraje yi maam Ceerno Ibrahim borom Daarul ci mi nga xam ne ci ab dëkkam lañu bàyyi woon ci ak njabootam lañu bàyyi ko woon na ko njëggalug yàlla fekk fa mu ne yàlla ko yërmande yàlla fekk famu mu ne yal na ko xéewali sëriñ Tuubaa yi gàttandu waaye yal na ko nangu laylatul xadar gàttandu ci barkeb sëriñ Tuubaa xaadima rasul muy ay kàddu yoo xam ne mënuñu ko woon a ñàkk yëkkati rek ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm di ko jaale umma islamique bépp waaye di ko jaale Sénégal gépp waaye mënees naa wax na sax di ko jaale adduna bépp ndax ko amaloon njëriñ aw xeetam la waaye ko amaloon njariñ réew mi la waaye ko amaloon njëriñ adduna bépp la yàlla na ko yàlla jéggal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.